jiya ji fate jiya ji sama gars mr Mister la depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon sama gars côte ouest lay doon gars tay dama ñëw dafa leen vidéo bu doy war ci président Macky Sall ak président Sonko di laaj ndax Macky Sall guerrier la wala ndax Macky Sall criminel la wala bandi la parce que ñu bari dañ ne Macky Sall tapet la ragal la buy def ay njombeem du toog Sénégal day jékki-jékki daal di daw waaye dama doon seetaan Clédor Sène démb ci benn chaîne bu ñuy wax Grand TV Grand Théâtre TV Clédor di ñu limal xaalis bi nga xam ne moom nee na Macky Sall daf ko luubal ci. Euh, banque bi nga xamné ne Aliou Sall rakku Macky Sall daf ko tidji muy BDK Macky Sall jël xaalisu Sénégal bi yëpp bi nga xamné CDC lay nek moy xaalis Sénégal yépp CDC lañ ko denc muy euh, caisse de consignation et dépôt caisse de dépôt et consignation mu jël rakam tek fa Aliou Sall Aliou Sall jël xaalis bi daal di ko lóobal dugal ko ci bankam am ba xaalis boobu jural ko ay milliards milliards ba Aliou Sall léegi ak ñeneen tijjiwaat yeneen banque banque yooyu ñoo gën a siiw Sénégal ñoo ëpp Sénégal man dama sax fàtte naa sax banque boobu nu mu tudd muy benn ñaar nee makk Macky bañ ko falee président 2012 février juin Macky Sall dañu dañu créé defe naa Petrotim ci la Franck Timis yow ñu jël xaalisu Sénégal bi yëpp daal ko luubal lu tax ma ne Macky Sall guerrier la <laughs> wala criminel la wala bandit la ndax yow ñëpp nañ ne Macky Sall dafa sedd Macky Sall innocent la Macky Sall ragal la waaye yow nañ la leen defee président juróom benn weer nga jël pétrole bi yëpp nga jaay ko xaalis bi nga dugal ko sa sa sa poos ñu jël am na tamit lu mu wax ArcelorMittal la xaw ma lu mat ñaari junni ci ay milliards Sénégal ñu baal ko ay indien indien yi jox leen xaalis xaalis boobu xamuñu ñoom fan la ko euh, Macky Sall dugal fan la ko Aliou Sall dugal muy ñaar ak yeneeni i yeneen i yeneen i scandale yoo xam ne Clédor nga xam ne dossier yëpp la xam dem na ba tudd Samuel Sarr ah ak Aliou def naa ci gazu ñoom ñoo war a jël euh, gazu euh, Saint-Louis bi di jaay Senelec courant loolu yëpp Macky Sall jël ko daal di ko euh, luubal parewul mu jël Mansour Faye mu ne xaalisu Covid bi ma julli milliard ba léegi Mansour Faye nee na du génnee benn ticket benn facture mu wan waa Sénégal fan la xaalis bi jaar Clédor di génne ay mbóot di génne ay mbóot di génne ay man démb dama kaa seetaan ma ne waa mais lii moom lan la Macky Sall yàgg nañ ko jiiñ eh, suuf si jaay nañ ko suuf sële jaay nañ ko hôpital Dantec jaay nañ ko mais loolu yëfu guerrier la ku am pit rek mooy def lii wala boog yëfu bandi wala yëfu criminel te Sénégal bu mu jógee di wax ne Macky Sall tàppet la léegi loolu ci mbiru xaalis rek la waaye boo jëlee mbiru Ousmane Sonko ni ko Macky Sall sonnalee ci affaire Adji Sarr parce que bu ma nee Macky Sall parce que procureur Macky Sall yi ñëpp xam nañ ne Macky Sall moo leen di wax jàppal kii wala bul jàpp kee loolu mii mu turé moo ñu ko wax nee ba mu nekkee euh, ministre de Macky Sall mu ngi koy wax toppal Karim Wade demal fii dugg na fii génn fii bu jugee di wax ne Macky Sall ragal la léegi ñun kii est-ce que ku ragal dina dem jël xaalisu senegal bi yëpp jënd ci ay gànnaay yu dul jeex ngir faagaagal ay opposant ngir faagaagal Ousmane Sonko parce que Macky Sall moo ñu fi waxoon lu fi amoon doot fi amaat léegi Clédor lan moo tax boobu ba léegi muy génne secret yi teken kenn jàpp ko parce que dimba dama seetaan Clédor ci Grand Théâtre TV mu Macky Sall ndaron na baye nguur gi ndaron na baye nguur gi waye dossier yi ñu ko yi mu tudd nonu motax Macky Sall xamné ne bu baye nguur gi dañ koy japp pour haute trahison man nak lolo tax ma tit ci Clédor semaine passée wax naa leen dama tit ci Cheikh Bara ndjay parce que Cheikh Bara ndjay dañu gis ne dafa genn léegi nek activiste di attaquer Macky Sall bok ci ay marche mom mu wat billahi wallahi taala barki Serigne Touba barki alxuraan ne Macky Sall fay wacc 2024 te ñepp xam nañ ne Macky Sall tok lay def 2024 dafa bëgg bok paré gul pour dem ndax APR amul kenn ku ñu jël ne mom moy remplacer Macky Sall Macky Sall gis nañ ko fan yi mu genn mu ne dafa bëgg jaay million ci ay carte lu muy jaay ay carte parce que moom dafa bëgg ñu votal ko kon ci benn côté Macky Sall mi ngi bëgg jaar ci ay élections pour def troisième mandat mais ci beneen côté aussi Dàmbo génn mu ne Macky Sall dafa bëgg xañ Ousmane Sonko ba ne du bokk président Sonko nag génn na moom mu waat mu ne waatul mais dafa ne affaire Adji moom kenn mënu ko ci tëj te kenn mënu ko ci tere bokk élection léegi man li may li may li may wax mooy li tax may laaj ndax Macky Sall géré la wala Macky Sall criminel man de fit mom Sénégal ba mu tek musuma gis ñaari nit yu am fit comme Macky Sall ak président Sonko benn nit rek la gis né mo ëpp fit Macky Sall moy président Sonko ndax Macky Sall nit ko xamné ragalul tëj Pape Karim Xrum Hak, ragalul tëj Ousmane Sonko parce que djem na jéem na ko mais munu ko ragul tëj Karim ragul tëj Khalifa Sall ba mu da toogee ba léegi Macky Sall dafa wane ne dafa am fit seulement daf si jul feeñ <coughs> daf si jul feeñ moom day def li muy def mais ñëpp xam nañ ne moom mooy nas waaye euh, li tax ma ne euh, bandi la wala criminel la wala boog dafa am fit fit bi moom defe naa wane naa ko senegal nag bu ñu jógee di wax noo amul fit defee li muy def ba dëkk bi ndara tàkk dafay jël avion bi avion daal daw mais man loolu loolu du tax ma ne amul fit parce que nit ku amul fit nit ku am fit rek moom mooy xool ne dëkk bi le 3 mars ak ni mu meloon ci moom tàng jër ba mu ndara perte nguuram ah Macky Sall bu amuloon fit dafay naan ah man de du ma xool ñu rey ma duma xool ñu taal ay Auchan walla lii Ousmane Sonko dootu moo ko laal mais tey la gën a bëgg jàpp Ousmane Sonko ñëpp nee nañ dafa am benn complot boo xam ne mi ngi waaj a dal ci président Sonko. léegi euh, li tax may poser question yi mooy Cheikh Bara Ndiaye man damaa ragal ñu faagaagal ko Clédor bii ma seetaan démb Grand Théâtre TV ak li mu wax ak li mu tëkkee mag tëkkoo Macky Sall nee na Macky Sall dañ koy topp haute trahison Macky Sall bëggoon na bàyyi waaye dossier yi moo tax bàyyiwul waaye léegi nag man foofu laay interpellé Clédor foofu laay interpellé waa Sénégal ba ngeen xamee ne Macky Sall dafa ndara taal Sénégal Clédor moo ko wax de parce que xam na ne bu bu joxe nguur gi dañ koy jàpp dañuy jàpp Aliou Sall dañuy jàpp Samuel Sarr ñu ñëpp dañ leen di jàpp waaye ñun est-ce que waruñu jéem waxtaan ak Macky sàll ba du taal Sénégal ba du rey Sonko ba du jàpp Sonko man damaa tiit pour Sénégal damaa ragal ñu rey Ousmane Sonko billahi wallahi taala Thomas Sankara dañ kaa rey euh, Nelson laa gis nga dañ koo jàpp tëj ko ay at yu bëri Patrice baax dañ kaa rey te ñooñu ay Ousmane Sonko lañu Ousmane Sonko dañu war a def lépp pour protéger ko bu fekkee ne jar na ñu bàyyi Macky sàlla ñu baal ko lépp lu mu mën a def parce que Karim lu euh, euh, Clédor li mu wax ay junni junni milliards la waaye li may bëgg laaj mooy est-ce que junni milliards ak bakkanu Sonko tey boo leen doon tànn ban ngeen di tànn man de boo ma doon bu ma doon tànn bakkanu Sonko laay tànn parce que Sonko bu deewee maara day taali Sénégal waxuma la ay junni milliards dinañu ñàkk ay fukki ay ñaari fukki junni milliards ndax dëkk bi dina takk jëppee dëkk bi dina yàqu ñu bëri dinañ ci dee ndax Sonko bu deewee Sénégal guerre civile moo fa am Casamance dootul mu sa am jàmm ba ilaa yow mi xale yi dinañu taal Auchan yi ñu yàq ci dëkk bi armée bi dina génn dina xeex ak nit ñi waa APR yu bëri dinañu dee sama xamit xarit Mamour Diallo nekkatul ci jàmm Macky Sall du nekk ci jàmm Euh, euh, Farba Ngom mi génn di xas Sonko di wax ay affaire Adji Sarr ak suite voté ci ci assemblée ba du am jàmm waa APR yëpp bugguma fi sax nekk di lim mais ñii ma tudd boo gisee ma tudd sama xarit Mamour Diallo c'est parce que moom tamit dafa li dal Macky moo ko dal que ne bu bàyyee nguur gi dañ koy jàpp dañ koy tëj waaye léegi est-ce que mënuñu waxtaan suñu biir ñun waa ñoom Clédor ak ak ak ñoom Ousmane Sonko ñu jéem a gis Macky Sall ñu may ko porte de sortie bu jaree ñu négocier ñoom bu ñuy delloo sa yenn xaalis bu ñu ne dañoo jël xaalis bu bëri ñu delloo ñu sax tuuti wala ñu récupérer tuuti ñu renégocier contrat yi nangu ko ci loxo Samuel Sarr ak yooyu affaire Senelec ñu bàyyi leen ñu dem buñ ko deful man damay ragal ne Macky Sall dina continuer def li muy def dàmbooj yaa ci topp surtout nag Clédor Clédor li mu xam dafa bëri limu yor ci dossier dafa bëri parce que mu nane yor na acte notaire notaire beeg gën fi génn fi bo bëggee mën naa la ko yónnee comprendre nga euh, Cheikh Bara ndjay sa yu waxé gañ Macky Sall man dal gaay lolu la gis que ne Macky Sall du wax criminel waye jikko bandi mi ngi ci mom Macky Sall jikko bandi mi ngi ci mom nit ku am fit la te gis nga billahi wallahi taalahi bu ñu toogul ak Macky Sall ñu waxtaan ak mom gànnaay yi mu jot a jënd ñi mu jël teg ci ci ci Moussa Fall ñi mu jël teg ci euh, armée bi ci gendarmerie bi jël procureur Amadou juuf moom it mu ñëw gën a tàng Bassirou ah ñi mu jël yàgg def ci police ñooñu ay ba Diattara ay Mamour jàll ñooñu dañoo joxe dañoo tey tayle seen bakkan ne dañuy dee wala ñu dund te nit nag bu demee ba toll foofu ne man amatuma lu may ñàkk ah comme mortal combat la ñu Ousmane Sonko woo dinañ ci dem mais nag man loolu laay tiit loolu laay tiit Sénégal daal di tàkk mais président Sonko moom vraiment man tiit naa ci moom lool lool lool lool. te billaahi wallaahi taalaahi bu ñu ko reyee Sonko bu ñu ko reyee wala ñu def ko ñu empoisonné ko wala ñu def dara ba mu feebar billaahi wallaahi taalaahi. Sénégal dina yakku ba faw président Sonko démb laa ko doon seetaanaat grand kii euh, TFM maa koy dogu a pap ali pap euh kii ni mu tudd bañ ko invité ci émission bobu émission pap Cheikh Diallo bi quartier général lolou daf na war na ñett am ñetti at dama ci tomber rek kii ndaw si Diallo ndaw si Diallo diko ko wax ne yow dal da nga fiy nekk rek di def ay révélation amuloo plan Sonko tontu ko tontu tontu bu doy waar ndoy ban tamit ne di jema wacc Sonko diko jema wax mais Sonko tontu yi mu ko tontu ba pap Cheikh Diallo ci boppam di wax Sonko mi <laughs> intellectuel la ki borom bop la man ci la gën a jëbul ci Ousmane Sonko ndax yaa yow yaa TFM ñu lay attaquer mais Sonko dafa calme fi mu ni mu calmer non la calmer mu tontu génne ay réponses yoo xam ne Pape Cheikh Diallo ci boppam. dafa dafa nangu ni kii borom bopp la man loolu dal na ma ci Sonko ndax ba may ànd ak Mamour Diallo di ko di défendre Mamour Diallo contre Sonko ci affaire 94 milliards yi ba ma dégloo Sonko Pape Alé Niang invité ko 31 décembre 2STV ñaari waxtu ma déglu ko ci laa jëmbali ci Sonko ni kii kii de li mu wax yëpp ànd naa ci ba mu des affaire 94 milliards yi. li mu wax yëpp ndax affaire 94 milliards dañ ko ci laaj mu naan euh, fàttali naa Atlas ak euh, euh, entreprise am nu mu tudd ak Mercalex te 94 milliards yi boobu ñaari milliards rek ko jot a génn. man foofu laa la mais lépp lu Ousmane Sonko wax téere la Ousmane Sonko dafa mel ne yonent boo xam ne yàlla moo ñu ko yónnee billaahi du neenul de lu tax ñu koy wax euh, euh, Seydina Ousmane Sonko mu sell mi maamu daal sama xarit la ñoo bokk classe tuddee naa ko doom waaye billaahi man Sonko man maay njaagu Sonko Sonko dama kaa gëm dama kaa gën a respecté li ma seetaan démb quartier général gars yi dem leen ngeen seetaanaat ko borom bopp la billaahi wallaahi taalaahi kii buñ ko ñàkkee. dootuñu am ku mel nii ba ilaa yow mi diin moo tax ñu war a def lépp ba sàmm ko Macky Sall di jël ay garde Sonko di leen jàpp lan lañ jublu ci loolu dañ ko bëgg rey wala dañ ko bëgg lan lañ jublu ci loolu lu tax ñu jàpp ay ay garde corps Sonko ne sénégalais yëpp jub ñu ñu protéger Sonko parce que kii moo war a nekk président 2024 Macky Sall dem ci jàmm ak salaam loolu mooy suñu mucc loolu buñ ko deful billaahi dinañ ko rëcc gars yi like leen partager leen abonné leen monsieur Cheikh ba beneen ñu defal leen vidéo vive le président Sonko vive Yewwi Askan Wi vive le Sénégal merci